mbokk yi nuyooti nañ leen képp kuy seetaan wasaare làmb am kontante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen niñ koy defee saasu ne jóge nañ léegi fi nga xamante ne mooy Cambérène ñu ngi fii ci Fass ñaari adversaire yu war a bëre le 11 janvier 2020 fee ci stade Jom Iba Mar Diop mu dox ci diggante Bébé Bismi bu dóor dóoraat ak Ada Fass bu Fass Benno tey ñu ñëw seet si Ada Fass jël nañ léegi li nga xamante ne moom la Bébé Bismi waajalee kombaam ak ñëpp nu ko waxee Ada ngi nii tungu ne nag du teew ñuy natt ci ëkk Ada maa lay siyaar. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul Jolox Al Misbah Karafal maa ngi lay siyaar. nga dox sa nga war a bëre combat bu mag moo xamante ne yaa ngi ko war a bëre yow ak Bébé Bismi. moo waajee combat boobu. waaw di contentement seen teewaay fii waaw Wassare Lamb waaw di kon di di kontaan waaw seen teewaay fii waaw di waaj làmb ji bu baax a baax a baax mu nag samay coach sama coach Père Fallou ama fayam may jàpp di ma liggéeyloo hmm. waaw di am contentement bu rëy moom waaw ñoo ngi waaj nag bu baax a baax a baax a baax ndaxte combat bi dañu soxal dañuy teel waaw mosuñu am combat bu ñu bëggee nii combat bi mooy suñu lépp te jar nañu lépp tamit lu mu laaj dañ ko def ndax ndam barke sëñ Saaliw waaw. ndeysaan nga war a bëreeg bis mi xam nga koy bébé bis. waaw bébé bis mi xam nañ ko moo ñu jut làmb te teewul mu gën ñu xam làmb. Mm-hmm. waaw dafa def ay jéego ñu def ay jéego. jéego moo tax ma bëreeg moom waaw xam nañ ko bu baax a baax a baax. Mhm. sa dernière sorti da jël kenn koo xamante ne mag la ci làmb mu jiitu la lool ci làmb ëpp la expérience nga jël ko ñàkk ci muy sa diggante ak Onde le Fou tey nga jëlaat keneen koo xamante ni mun daanaka mun naa ne ay morom ngeen ci làmb waaye moo la mag ci làmb nombre de combat yi mu bëree bëree woo ko lan nga ciy sóoraale ci komba boobu. dëgg la jóge naa si combat. bu ma métti métti samay supporters métti ñëpp mais yàlla la quoi yàlla mooy dogal yàlla nañ lépp mais suñ borom moo dogal ne jour bi su ñàkk la bi su am di ñaan yàlla te mu jëm foofu. su combat bu jëm ni yàlla combat bu ñu jëm ni ndam rek moo ñu mën a fayee fu ñu jógee te kat suñ kattanu borom incha allah suñu borom nañu mooy ndam incha allah rabbi gis nga Bébé Bismi dafa am lu ko metti ndax nee na da ngeen a daje yéen ñaar seen seen jàkkaarloo bu ngeen daan def stade Jom Iba Mar Diop nee na nga toj para brise otoom waaye loolu bu ngeen wéetee ci diggu géew bi di nga ko wax yow loo noo ko yebee. moom loolu la jàpp rek mën nañoo toj pare-brise otoom loolu amul day wax di inventé nii rek nekkee loolu wax loolu la dëgg loolu lay wax noonu na ko dëggal tamit bisu bisu laamu jaa allah ba mu ne prib na ko dëggal dëggal wax. waaw yaa toj pare oto moom moo ko wax de man waxuma ko te gis ma toj ko. nee na moom moo la gis. mais est-ce que loolu bokk na ci liy defar laam. non man toj ma par man laal ma sa oto gisuma ko sax bu muy ñibbi. waaw moom mooy éventer di wax nii rek. waaw. dafa mel ni dafa am loo ko naral. dëgg ma la on sama suñu bis la la on ba dara su bëggee juróom ñun bëgg nañ si dix mil ndaxte la on dañuy tee waaw lépp si xel mu sell. Ada Fass yaa ngi bëri ku garaaw Bébé Bismi ci ci ci ci xadar gi ci mën a xeex gi ci mën a bëre bi lan nga koy te nee na yow benn façon benn bëre nga am muy mbot nee na sa wet gi ngay xaar bu kii nee na daa bëgg rek nga may ko wet boo ko mayee wet dootoo ko defati. moom loolu la jàpp mbot laa am moom moo gis loolu ba di ko wax moom moo ko gis man li laa ñëkkee balaa may ñëw làmb arène ku jël ay drapeau kon waxal ñëpp dañ leen mbot moom moo gis mbot bi ndax de mbot bi lay sóoraale moom da dëggal boppam rek lu muy wax na ko gëm lu muy wax na ko gëm waaw loolu kese laa am lu mu koy wax. kan moo ci dànq xeex ak làmb ji loo ci bëgg xeex nga bëgg wala bëre. làmb ji lu mu laaj rek lu mu laaj ñu def ko laaj ñu xeex ba gëntale ñu raag ba gëntale laaj ñu bëre ba ñu bëre ba lu mu laaj rek ñu def ko hmm. waaw. Bébé la gën a mënee bëre wala xeex. moom lu mu indi rek mu fekk ko fi naata ñun par nañ si bépp côté dégg ma du ko buggee mille bëgg nañ ko dix mille. barki borom Tuuba maa gën a mere lépp lépp ay xaañu la ñoom ñun dañoo pare démb tey soog a ñëw xare Badar ñu ko mos a daw barki borom Tuuba waaw. le 11. ñu ne làmb euh, stadium Iba Mar Diop mu ngi tëj le 12 janvier le 11 yaag bébé bis mi yéen a koy tëj ci bëre dóor ndam loolu moom ku ko am Sénégal dina ko nettali bis bi stade Iba Mar doon tëj bébé bis meeg ñoo ci bëre yaa ngi xalaat combat bi fu mu la mën a yóbbu ak boo ko ñàkkee fu mu la mën a yóbbu. bu ñu amee ndam fu ñu mën a yóbbu. waaw loolu la ñuy ñaan yàlla bu ñu amee ndam fu ñu mën a yóbbu. le onze le dernier jour lutte avec frappe laa dégg ah stade Iba waaw di ñaan yàlla ndam rek nekk suñu histoire làmb di ñaan yàlla ndam si kaw Bébé Bismi Bébé Bismi maa ñaan yàlla ndam sa kaw si kàttanu yàlla suñu borom naa la daan naa la duma naa la daan barke sëñ Saaliw. dafa mel ni tey lañ ci date bi sëñ Bass dafa mel ni tey la de tey la combat bi jëm lu onze yaa ngi ci préparation combat ay laar ay xarfa xuufa lu ne gis naa lan la làmb ji mystique moo koy gañe wala lan nga jàpp ne moom moo koy gañe. Ah, dama ne le onze lu mu laaj ñu def ko lu mu munti laaj jaral ñu lépp barki borom Touba dégg ma xanaa jaral lépp laam ndam rek si kàttanu suñu borom du leneen ndam rek. lii nii gars yi ñoo ma ko jox sama baay am na ñoom moom mooy loolu duñ toog fépp la ñu dem dégg ma la on suñu yitte la te incha si kattan suñu borom xëppal say bët xool la onze am mu day xeex na xeex. la onze sareetul ay wax day yàq man saaka yàkkamtee xeex la la onze la lépp di xew si kattanu suñu borom. làmb ji bi mu duggee léegi ñaata nga ci def ci mystique. ah man xaw ma mystique gars man xaw ma yooyu man entraînement la ma sas lekk tëdd na la man xaw ma mystique gëm som bopp kese du leneen waaw. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama neuvième combat. nga am ak ñaata défaite. six victoire deux défaite mooy sama neuvième combat. kan moo la daan. man caatu baay a ond waaw. défaite yooyu lu mu def ci yow. yooyu ma loolu daf ma jàngat rek ndaxte boobu xale laa caatu baay paadu may daan xale te ondu fu may daan sa xale laa sama premier grand combat boobu xaw ma lu xew maa ngi topp waa fugu rek di tëb di dal suñu combat bu jëm suñu morom la waaw man moroom la waaw dafa nee ne abdoulaye Pride dama may dara dina wax na laa ko yóbbee si kàttan suñu borom maa ngi koy ñaan yàlla. yàlla nañ yàlla moom mu ànd sogam mu ànd sama sog ab ne prip mu wan mu lépp man laa koy ñaan dafa ma jàppal benn ma jàppal naa ko dix te balaa nga xam Abdou ne woon prip gën suñu kanam. nee na ki muy bëreel amul respect respecté wul kenn ku muy bëreel wax ko wax ju ñaaw ba moom wax nga ko ko def nga ko mu gis mais nee na li mu li ko métti mooy daf la buggoon yóbbu ci yoon mais du ko def day bàyyi ba arbitre bi tëj barrière yi bu ne la yem ma fii nga yem ko foofu dama dama guuxale dama guuxale un ah, man guuxal naa ko cent am mu ne abrité dina ma wan <laughs> meral na la te nga ko baalu rek mu la wax noonu yëpp deuxième la def tàppet la ñu nekk ñu ay tàppet na woon tàppet la rek duñ dugg si làmb moom tàppet la ragal la te balaa nga ne prib lu mu wax noonu yëpp di ko def dañoo jébalu daanu ñibbi damay ragal dina metti de sawaay la onze sawaay dañoo jébalu daanu ñibbi du xeexee ma du ko du bëree ma daal ko. nee dafa bëgg comme combat Gris Bordeaux ak Eumeu Sène ni meloon jaabante ardo bi mel ni toog tulleeg màlle ngeen di dem di ñëw di dem di ñëw di dem di ñëw est ce que bëgg nga loolu. loolu yow wax loolu boo ko defee doo doo ko ti mukk si kër àdduna. juróom lay bàyyi lekk ceeb ak yàpp ak lu kenn xamul ruy lay lekk chaque jour. wax naa la ñoom lu métti kooku du ko du nga ko tegee lu métti. waaye ragal mu rusloo ay supporteram sax. yaa xeex. dëggoo maanaam du ma ko tegal lu métti damay ragal mu rusloo ay supporter am na ñëw xalal dal jaamu ñu dalal ko. te moom xanaa moo fekk si te combat bi dafa jaral booy lépp booy dañuy fanaan stade entouré stade bi ba fajar ba sa jour bi huit booy dem stade. maa toog muy woo Fallou Ndiaye de waaye lu mu jënd ci bolok. stade ba boo yéexee doo dugg si. yow sax doo am foo taxaw. man maay borom fii Iba Mar maay borom. dañuy yeew rek dañuy yeew rek dugg si stade bi. dañuy yeew dugg si stade bi day xaañu rek na jënd ay dix bloc jàppale Fallou man dem ma jënd dis bloc jàppale suñu papu loolu la am si làmb ji amul leneen du bëre du xeex du fecc man maay fecc maay bëre maay daan si kàttan suñu borom. ci ambiance wàllu ambiance foo ci tool dégg nga man maay bëre maay fecc maay jàpp maay daan maa la wax loolu. te dañ toogaat fii ma xoolal ko. combat bi dina yàgg. sans dépense moom rek lu mu wax. mun a abdoulaye pour taxaw du léetoo di yàpp ay supporteram day ñëw jàpp bëre ñoo ngi koy xaar waaw. nee na moom lim lay ñaan mooy yow ñëwal stade rek yow bul bul waaj ci dara bul def dara yow ñëwal rek boo ñëwee nga taxaw mel ni kuy photo amul problème man ma ñëw taxaw mel ni kuy photo <laughs> doo ma la instant moo yëpp moom ay ma jàpp ndax de moom taxaw sama kanam du wax amul fit bi sax ñu ne ñoo xeex du ñu fay dara ñuy bagaar ci mbedd bi mel ni dof waxuma nag ñëw tey ñuy fay millions ñuy xeex si làmb kon dañuy jaral lépp moom lu muy wax noonu lépp gëmu ko yéen lay ma jaab lay yaa nga téye micro bi nii rek muy wax gëmu ko tapet la. da nga wax naa man bee bis yow tapet nga xam nga lool tapet bu rëy nga ba ab ne prix ma sa waay nga dëgg sa bopp li nga wax yëpp dégg naa ko bu baax a baax a baax yaa ngi soog a yëpp nag yëpp client da nga baax rek. yii bébé bismi damaa yaakaaroon da mer waaye kii <laughs> Ardo daa mel ni am na loo guuxal bébé bismi. dagaw ma la onze bakkan bi dañ ko teg ci suuf tege ko nele ba si dara la onze bakkan bi fee lañ ko tegee kii borom tuuba lu mu tumbax ñu rumbax ko. sëñ Bas de lamb ji damaa ragal. kuñ ci yenn dóor ci suuf kenn du mën a joxe drapeau bi ndax poussière bu bari ndax xam naa ne ñaari xale yi li ñu xiifantee ak li ñuy wàcc ci làmb ban mobilisation ngay def ci say côté super supporter ak ban message nga leen lancé ci non à la violence. waaw di doole rek di woo ñëpp tamit waaw surtout ñu may jàppale. làmb moom dafa métti nekkul benn jour nekkul ñaari jour surtout mbër. Mm-hmm. mbër daa métti sa jour gars yi duñ sa yitte rek la dox di woo Fass Colobane Medina Gueule Tapée Grand Dakar Plateau di ñëpp du ma limee rek damay jum di sant tamit ñu may jàppale bu baax a baax baax baax ñëpp aw ma seen fay du ma limee rek tamit damay jum ñu may jàppale ñëpp xam nañ xam nañ seen bopp di sonn si Arafas matin midi soir di sant sama coach sama père père Fallou moom day sonn si man lu nekk lay def day taal otom jël suñu yóbbu ñu entraînement waaw di def si ñun lu lu bëri doole tamit amuñu fayam di kontaan tamit sama waaw sama gaay waaw non à la violence tamit dañ koy indi ndax de la onze nekkul bis bu tuuti xaw ma kan de ba bis mooy wax noonu la la onze ñun defuñu ko sax bis bu tuuti te balaa moo xam bàyyi bala onze si kàttanu yàlla incha allah rabbi waaw nga yëpp ci yar ak tey di woo ñëpp non à violence waaw tamit di ne hommage sama benn doom day àlla yàlla suuf af si kawam sama mère mère Ndiaye àdduna moo demee noonu waaw àdduna moom moo baaxee noonu sax laay wax waaw li làmb la rek te day jeex dama ne ba bés bi non à violence bu ragal lool nag de day métti day saf sàpp day saf sàpp ñëwal si ndànk nga tey duma la daal la bu la wa Cambérène nga ñibbi waaw Bébé Bismi ban tànk lay jiital gauche wala droite. <laughs> dëgg maa du ma tapet Bébé lay jiital tegee gauche cuun du tegee gauche xam lu day day ragal sa xeex moo tax mu teg gauche droite lay jiital. day jaaxaarloo dëgg xanaa bu mu teg man dafa may arrangé ndax dama làmb dictionnaire la si man dama ko xam waaw ba Z dama sama làmb mosul diir trois minutes pour pip mu jeex loolu laa xam. moom de moom de wax mooy xamul ban pied ngay jiital ma ne ko xamoo ban pied ngay lay jiital ba pare nga ni day maye wet. ba pare xam nga ban pied lay jiital. day teg gauche droite. da teg dëgg ma xanaa da da tolane daf gauche droite ne xam na tolane mooy loolu war na mu neex ma kaa jàpp ma ma day teg gauche droite lu mu teg rek amul problème moom na am na preuve rek mu dëggal lu mu wax waaw. loolu lañ gëm naa am na preuve rek mu dëggal lu mu wax. waaw wasaare lamb maa ngi koy dégg bu baax a baax a baax si YouTube bi waaw sa doom day maa ngi koy dégg sëñ Basiru maa ngi koy dégg muy muy kii lu naaj rapporteur muy rapporteur di waaw muy revue de presse lu doy waar tamit moom tamit moo ngi bay waaram si làmb ndaxte làmb moom ku si nekk rek ñun amuñu sa fay ñun mbër yi ndaxte ñun ngeen di jàppale te mbër dafa métti lu ma mbër dafa métti entraînement yi fi kërëng kërëng fi kërëng kërëng fee da leen daal di leen gërëm yéen waa wasaare làmb di ne na ñëpp abonné wasaare làmb waaw maa leen bëgg a baax. kon buum lay def. waaw buum lay def ba explosé. jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen li nga xamante ni moom la Ada Fass wax jóge nañ ci bés bébé mi wax na sànni ko Ada wax sànni ko làmb noonu la ci coow lay commencé waaye ci coow lay jeexee. waaye làmb ji moom bu jeexee rek jeex na le onze incha allah rabbi bu ñu xëyee le douze dañuy nettale làmb ji Ada Fass ak Bébé Bismi kan moo daan mbokk ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen tàgg ba ëllëg incha allah ci wasaare làmb ak beneen daanaan ak beneen sampion jaajëf mbër. <laughs>